pour mu dugg ci sëy dana xawa a jafe lool bu dee jigéen joo xam ne am na borom kër la tegtale pour mu taxawal ak njaboot dana xawa a jafe mooy jigéen joo xam ne njaboot gum am dana faatu la faatu moom moom moom ku jigéen ki bi ci desaat tamit danay doon jigéen joo xam ne kii bëri ay borom kër lay doon bu sëyee fi ba tas mën naa sëy keneen jëkkëram gaañu mu sëyaat kii ba tas jëkkëram gaañuwaat kon yëpp ay misaal la yi wane ne gént googu kum faral di gaar rek yeboo nga bàyyi xel bu baax a baax Euh, beneen bi ci toppaat mooy koo xam ne dangay wut place pour liggéey nga gént ñu lay wat loolu baaxul loolu bu dee place la boo ci duggee mën ngaa perte boo lebee xaalis jàmm ba dugg ci mën ngaa dem ba ci biir nga perte ay jafe-jafe la lay jural wala ay xat-xat moo tax ci anam boobu ko gént rek lu ma di bàyyi xel la beneen bi ci desaat mooy koo xam ne dangaa gént gis barab bu ngay liggéey kenn di la wat wala patron bi di la wat loolu waxtu bu amee yow nga jug sa bopp bu baax a baax dana wane ne benn barab bi ñu ngi lay waaj a dàq wa ilaa am na ci ku nekk ci barab bi koo xam ne ay pexam bu sottee mooy nga jóge ci barab ba mooy am na ci koo xam ne itteem yëpp mooy barab boobu noonu yow nga jóge fa wala ñu jëlee la loolu saa bu amee rek kum gaar ci gént yow ba nga jël say matuwaay baax xam ne barab boobu mën nga faa jógee tout le temps wala mën nga fa am ay jafe jaxe wala poste bi nga yor mën nañ laa folli loolu it lu mat di bàyyi xel la beneen ku febar man noppi nga gént gis ko ñukay wat baxut dana tektale ni tawat ji man na ci yag lol lol ka moy sa mbokk mom nga gént mu tawat nga gént gis ko watu day tektale man na ci yag kon ko xam da nga gént ko xamne euh, dafa nek barzaq ba nopi ñukay wat loolu dafa bokku ci xetu gént yi tektale ni lol ak njéggal la ci sa mbokk mom bu dee sa wajur la ak la ci mom euh batayit Eh, koo xam ne da nga doon ñaan yàlla njéggal yow sa digganteeg sa borom nga gént ñu wat la ba nga set loolu tegtalul ak ñàkk de foofu day tegtale jéggal ci situation bi nga toll di jéggalu yàlla wala situation bi nga tollu di ñaan yàlla pour mu jéggal la yàlla mën na laa jéggal wa mu dimbali la moo tax ci anam boobu ko gént bul tegtale ak ñàkk lay doon bu dee nag koo xam ne danga am jafe-jafe ak yoon ak nit ngeen di dem ci yoon yow nga gént mel ne dañ laa wat ba nga set loolu it bu dee ko amal problème ci yoon boo demee mën nga ci am gàcc wa illaa doo am ndam ci mbir moom noonu nga am nit ki ci yoon loolu it kum gaar ci gént nanga nga bàyyi xel baax a baax euh, kon mbokk yi ñi nga xam ne aajo woon bi mën nañ koo jël mooy nekk nu affiché 78 443 nga xam ne dañoo bëgg ñu defal leen lu aju ci wàllu firi gént wala listixaar gu leer alaakulli xaal mën nañoo jël numéro 78 443 75 27. di leeral ne conte TikTok bu mag bi ñu yoroon TikTok dafa mujjee bloqué xam naa ci ay vidéo yoo xam ne dafa am jafe-jafe xam naa ci la baree ban mujj ñoo bloqué moo tax ngeen gis compte bi xam naa ñu ngi ñaan ñëpp partager vidéo yi te j'aime te abonné dana tax tamit lañ amoon ñu amaat ko ndax compte bu yàggoon la na war naa mat ñu gàtt gaan ñetti at waaye yenn saa yi liggéey mooy dox day dem ba ci yàgg lépp taxaw yàlla suñu borom am lu mu bëgg misaal jàmm bi kon YouTube bi mag vidéo yi ñu defoon yëpp a nekkoon ci compte TikTok bi bu ngeen duggee ci YouTube bi di ngeen gis yëpp waa yëpp a ci compte YouTube bi vidéo bu nekkoon ci TikTok bee rek bu ngeen ñëw ci YouTube bi dana fi nekk moo xam laaj wala tontu wala vidéo bu ñu mës a def rek ñun suñ compte YouTube mën nañ faa dugg mooy sëriñ bi rek bu ngeen defee noonu di ngeen ko gis kon numéro bi ma nekk 78 443 75 26 ñi nga xam nag dañoo am kumte mooy mooy mbir yu tëju wala cet jàpp leen wala rab leen sona di leen yàqal lu bëri teel a am jëkkër teel a ñu am doom. wala seen mbir yëpp di yàqu loolu it bu ñu wootee ci numéro am nañ ci ay solution am nañ ay càngat yu ñu liggéey ci loolu bi ci desaat ñi nga xam ne dañoo bëgg jaaroo aju ci wàllu ubbeeku am nañ jaaro yoo xam ne dafa dox ci wàllu ubbeeku bu baax ak ay càngat yoo xam ne ci wàllu kaaraange lay doon dox ba kenn du la yàqal kenn du la indil ay jafe-jafe yooyu bu ngeen wootee ci numéro dina leen jox ay tegtal yu baax ak ñi am jafe-jafe ci wàllu immunité wala ndoxu siti wala néew kàttan ci garab yi ñuy liggéey incha allah mu ne na len ci jappalé ba sun borom defal len ci lu foko sen jot inshallah rabbi kon numéro bi ngi non 78 443 75 27 euh ba tayit euh, ko xamné nak da nga gënt gis sa karaw nit yor ko digo sul mok nit yor sa karaw ñoyam lool waxtu amé rek yëgal ni amna ay def-def yu nekk sa yaram wala ñu ngi lay waja def dara wala yàqu la ci walu yaram yo xam man na la indil ay jafé jafe moo loolu ku ko gënt rek na nga gën a teey bu baax xam ne am na ku lay jéemal dara wala am na ku nekk sa kaw mooy gént sa karaw beneen bi ci desaat mooy koo xam ne tout le temps yow da ngay gént di watu rek fu la fekk loolu kum doon rek xamal ni am nga gàllankoor dëgg mooy yow da yàqule moom saa boo yoree place wala dara ba ci yaakaar rek da ngay yëg ne da ngay xëy xëy nga yor ñëpp da koy ñàkk loolu dina tegtale ne saa booy génn da ngay gént ñu lay wat beneen bi ci desaat tamit. Euh, ko xam da nga gént sa wajur la wat da ngay wajur dugg ci dara lolou yeggal ni ak tere la moy mbir mom ngay dugg man nga cey dem ba ci bir am ci ay jafé jafé yo xam man na la yakal lu bare bari euh, ba tey it koo xam ne dangaay ñaanal ay nit ba nopi nga gént di len wat lolou it na ijaba wala mandarga wërsegu yaatu mok kun jox safar nga diko sango baxna nga génti wat ay nit lolou sa bu amé rek ne wërsëgu yaatu la wala njariñ liy jugee ci ay nit ñu bari di ñëw ci yow la bu doon da ngay listixaar lu aju ci wàllu place ngay gént di wat nit loolu baax na dañuy xamal ne place boobu boo ci continuer euh, di nga fa am wërsëgu yaatu wala di fa am yokkute ci sa wàllu mbiri bopp yu jéggi dayoo wala yu jaaxal ñu baree bari moo tax loolu ko gént rek na nga séentu ne ay buntu wërsëg ay buntu yu baree bari taxaw na ci sa kanam bu dee da ngay waaj dugg ci place géntu ñu lay wat moom baaxul loolu waxtu amee rek yëgal galang bu baax moy mbir mom ngay taxaw pour nga am ci réussite totale du yomb de ndax parce que mbir la mo xam ak ñak mo ci nekk même gënt jigen gi gënt ñu wat tamit baaxu ak ñak lay tegtale wala ñak ben sa dom wala ñak sa borom kër borom ku tol jigen tamit man na tegtale ni man na baña muccu ci jam motax ci anam bobu bu jigen mom gënu ci bi ci dessat moy nga gënt watu ci gént gi saxaat ci gént yëg ngeen wattu nga ba àggal saxaat nga nag ci gént gi loolu waxtu bu amee nag dana am diggante booy tollu boo xam ne sa wàllu liggéey mën naa am jafe-jafe lool wala sa liggéey mën naa taxaw waaye soo góorgóorluwaatee yàlla mën naa dogal li nga ñàkkoon mën naa ñëwaat wala lu ko ëpp mën naa ñëw loolu moom ci anam boobu moom baax na ba tey it jigéen joo xam ne da nga gént di wat sa boroom kër loolu it wërsak buy jugee ci mom di ñëw ci yow la moy jigen ju gént di war sa borom kër lool day tegtal sa borom kër man na doon ay digënté yo xamni ak ñak man nako sonal lool bang koy dimbali lool mom ci anam boobu lool lay tegtale baax baax euh ba tayit goor go goo xam nga gént di war sa soxna ci bop nak lañ wax moy gént di war sa soxna ci bop dana tegtale ne soxna la soy doon so xamni momi dana néew doole lool ci walu dundin ba ni mu waroon wede deug dëgg mën naa dess bang koy jappalé ci ay mbir yu bari bari wala nga diko ko ci walu ay mbir moy ko xam nga genti di wat sa soxna benen bi ci dessa tamit ko xam nga ngaa di wat sa wajur baxna lolé tektal nit ko xamné yaangi yaa xel lu dox sa digganteeg sa wajur wo même genti di watu fo xamné xamofa lolit fa ay bakkar yo wara a jéggul dana ko tektal moy nit ki def ay bakkar yalla di ko misaal pour mu war koo tuub loolu dina tegtale nga gént nekk foo xam dangay watu te xamoo fu mu doon loolu kum gaar ci gént na nga bàyyi xel ne bàkkaar yi ngay def wala mbir yi ngay defantu na nga ko wattandiku bu baax yàlla bëgg yàlla suñu borom bëgg na nga tuub ko balaa ngaa faatu moo tax loolu du mat di bàyyi xel la baax a baax kon euh, gént di waxatu bari na ay mbir bu ñu desaa tamit koo xam da nga yor doom bu nekk xale liir nga gént di ko wat loolu baaxul loolu waxtu amee rek. na tektal ni sa dom man na la yéex a amal njariñ lol moy pour mu amal la njariñ dana xawa a lol wa ila di nga son ci mom lol mu dog la amal njariñ lol kum gar ci gent man nga bayyi xel bu baakha bax ne nitu wërsek lay doon waye njariñam man nga ko yéex a fekke kon lol it gënul ci walu gent inshallah rabbi eh bi ci desaat tamit ko xam da nga gént mel na nga nekk ci bisub tuddu di tuddu sa doom ñu wat loolu it waxtu wu amee rek yëgal ne yow mi génti gént gi na teg te ne yàlla mën naa def barke sa doom jooju wala njariñ wala xéewal yaatu yu yaatu loo xam ne yàlla mën naa dogal di nga ko fekkee kon lii lépp ay misaal la ci gént di watu am na ci anam yoo xam ni gën am na ci anam yoo xam nag nekkul loo xam ne gën na ci aji gént ji waaye nag lu mu ci mantikaa doon ci tolluwaay nit ki nag lay doon du caagi ne gént watu baaxul rek déedéet fépp la bon bi am na fooy toll baaxut am na fooy toll foo xam ne ay jafe-jafe lay doon am na foo xoo toll ay ñàkk lak doon am na foo xam ne ak ter la ci ay mbir yooyu bëgg a dugg même bu dee tukki la nga gént ñu wat la baaxut dañuy xaman tukki bi dañ laa tere soo mënee toog mooy li gën wala soo mënee niggandiku nga xaar bàyyi jëmmi jamono nga dem même bu dee sëy tamit nga gént ñu lay wat loolu nekkul loo xam ne gën na dana tegtale sëy bi boo ci nekkee bu yàggee mën ngaa dem ba ak ñàkk mën na loo sonal kon alaakulli xaalin lépp ay misaal la ci gént watu ñu ngi ñaan yàlla suñu borom defal ñu jàmm lépp lu si jub ñu sante waaye lépp loo xam ne dëng na mat dig doomu aadama la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala